ndax natt bii kat di màggal Tuubaa da def fu muy bëgg agsi natt bu ñu ko teg bu demee ba waxtu wa agsi lu ñu ko mas a teg ci natt dañ koy fuuraat doon toll noonu ñu tegaat ko sëriñ bi te du ci am dara lu weesu rasulullahi xamal ko noonu natt baa ngi bëgg agsi waaye ni ko ñëpp di yéege ni la ko yéege ba mu àgg ca at mujj ma lépp ci mag ñi li nett ni 1918 ci la ko sëriñ bi tàmbali màgga gi sëñ bi ci waxam moo ko tàmbalit boppam di ko def te waxu ko kenn am na ñu wax ne ci ay feq yu wóor euh, soxna Mariama Jaxate way jur Cheikh Abdoul Ahad ak Serigne Souhaïbou bi mu fi bàyyi ko ci safar ba ci njëkk wax ne ci la ko sëriñ bi tàmbalee ci biir kër gu mag gi booba it sëriñ bi yëgleeg ko ñu teg ci ñaari at wala ñett sëriñ bi xëy woote ndax dégg ngeen xissa bi ni ko sëriñ mu daay busa nettalee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 te kàddu yama yëkkati démb moom ko wax nee na ma yaar rek ma fi mooy wattu ak sàmm wattu li fi Serigne Touba def ak sàmm li fi Serigne ak li fi ay kilifaam bàyyi ne màggal gi na ko kilifaay bi daa santaane noonu la koy santaane kon na ko ñëpp dégg te xamee ko noonu xam na lay ndigalu Serigne mu ngi koy sant ñëpp kon nag li nga xam ne nag mooy li nga xam ne Cheikh Mahodou Moutakha mi ngi ko ci fàttali di ko ci bàyyiloo xel taalibe bi yëpp. mooy nee na nañ xam ne ndax màggal gi tey ren dafa tombe ci li ñuy wax contexte waxtu wu xat mooy wér di gi nga xam ne suñ borom du ko wàcce ci kaw jamono te moo xam la tax mu def ko ndax yàlla kenn du ko laaj lu tax waaye nag neen la ci Serigne tubaa tontoon ca pest ba ci njëriñ bi lay wax ndax nee na Serigne Touba bi taalibe ñëwee di ko wax ci pest bi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 am na bis tubaab bi ñëw boo peste bi metti na lool te xam ngeen peste moo gën a gaaw gën a garaaw jàngoor ji xew ci àdduna si ren ndax ku mbasa dal dañ lay ber génne la boo faatoo sax pour ñu sang la dana jafe Serigne Touba nag ku mas faatu ci taalibe yi te yàlla def mu mu yóbbu la daana digle ñu sang la te ñalee sang dara du leen ci fekk kon Serigne Touba moo mën a tàggale nit ak jàngoro ci biir loolu itam na ci suñu xel daal danaa ci dellusiwaat. li war a tax suñu xel dal ci kon Cheikh mun taxaa wax na ne mu ngi soññ taalibe bi yëpp ñu góor góor nag ci def tawakkul bañu def tawakkul wakiilu ci yàlla wakiilu ci yàlla gi la ci jiitu mooy addu'a silaaxul mu'min ab julli ngànnaayam dëgg dëgg mooy ñaan na ñëpp dellu seen borom toroxtu tu tuubal yàlla tey ñaan suñu borom jële ko fi waaye itam li nga xam ne suñ borom da koo santaane muy ndax atiyahu llaha wa atiyahu rasula wa ulul amri minkum ulul amri minkum mooy kenn ku ne la lay yilif ci fànn googu mooy sa ulul amri ba ca des mooy fasalu ahla dikri in kuntum la taalamun loolu itam xam-xamu médecine di ca tab nee na kon li nga xam ne wàllu docteur yi santaane nañ ko ci lu ñu war a wattandiku te la ci jiitu mooy masque yi nga xam ne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 waaye jamono ji laaju ko sëriñ bi wax na nañ ko soppi ba déwén ak jàmm la ci jiitu nag mooy ndaje yi yi nga xam ne daana dajale ay nit te loolu du naqaree yamale mooy lu mel ne cérémonie officielle bi ñu daa def fi bu ñu de ba ci suba sax soppi nañ ko ren incha allah fa suñu yéene baaso sax di su ko fa def bu fekkee dem na ba mënul sa ñàkk yëkkati gàddoom ci neneen lañ ko defee waaye cérémonie bi moom ñoo xam ne ren dindi nañ ko incha allah ba ca des it yi nga xam ne daanañ ko def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 ba damaa jeexal ak Seex Mouhamadou Mountakha yóbbante na ma ak cant ci mboolem ñu mu bokkal Serigne Touba bokk yëpp sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm ndax ñoom ñëpp kenn ku ci ne la la war sa digg ak moom ci ak fonk akuk yëg akuk jàpp ko jataay ak lépp nekk nga ko ñoom kenn ku ci ne def nga ko kon sëriñ bi nee ci li weesu lépp ak li egsiwut mi ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaane ci barkeb sëriñ Touba. mi nga xam ne li ngeen di jëf lépp jëm moo tax kenn ku ci na la fay taxaw la te nga day ci mbirum